بسم الإله الدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله الدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله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 alhamdulilahi rabbil alamin la hawla wala quwata illa billahi aliyil azim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli barke borom tuba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eh, bokki jullit yi bokki taalibe yi bu ñu sante yàlla julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar seexuna ahmadul xadim noo ngi ñaanalaat Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal te gën a dolli ak wéram li ko kàttan goog yaram ak goog xol ba yéene ji mu am ci liggéeyal lislaam lépp suñu borom jàppale ko ba mu àggale ko di ko fàttalikuwaat ci ñaan jàmbaari lislaam ji fi nekkoon di Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké yàlla na yàlla di wàcce ngërëmam ci kaw su ci kawam li fekk doomu aadama ngi dox ci kaw suuf di ñaanal jëwriñam ji ku fi nekkal di Serigne Cheikh yàlla may ko fan wu gudd ànd ak yaram sëriñ Sidi Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad di ko ñaanal yàlla mu dool dolli ko wér li ko taw feex tawféex e, di jaajëfal bokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ci seen émission bii ñu weesu mooy émission ëttu murit te ñu di ko amal ci seen télévision Lamfal TV mu di ci am alxemes ju jot bu vingt heures tegalee fanweeri minute ngeen di jàkkaarloo ci image bi seen bokkum taalibe Fallou Gala Sill mu feggoo ci wàllu caméra bi alaaji Fallou Silla feggoo ak sëriñ Fallou Sow tey jii nag bokk yi ñu am mbégte ti ñëw ci ëtt bu mag mu di ëtt boo xamante ne bii bu ñu ko waxtaanee dëgg da ngeen gis na lu bari ci yoonu murit ndakate foofu lañu maamu waaye da ngeen ko fekk muy ëttub xam di ëttub alquran di waaye di ëttub diine jaamukatub yàlla waaye di ëttub taalibib sëriñ tubaa xaadimu rasul ëtt boobu di ëttub sëriñ mañaaw silla tey jii nag ñu toog ci kenn ci ay sëtam di sëriñ saaliwu silla imam fii ci tubaa njaareem bokk ci njaboot gi waaye doonoon jàngalekat ci biir kër Serigne Saalihu Mbàkke waaye di fa imaam di fa jàngalekat ba bisu tey jii ñu fekk si ko fii ci Touba Njaareem fas yéene seq ak aw waxtaan wu jëm ci sang bu tedd boobu di maam yi ñu bari ci biir yoonu murit ginnaaw bu ñu siyaaree bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo ci maamu ci kër Serigne Abdou Lahad kër Serigne Souhaïbou kër Serigne Saliou kër Serigne Abdou Khadir ak kër sëriñ Fadilou ak biir kër yooni murit yëpp rek eh, sëñ Saliou ñoo ngi lay dalal fii ci seen télévision Lamp Fall TV. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin lay delloo nuyu bi tey nuyu bokki taalibe yi di leen siyaara lu bari te di leen balu àq te am yéene doxale kàddu yi ci noonu nga ko junje kon foofu la jëm ci nuyoo bi rek ba kàddu gi agsi mhm. jërëjëf euh, sëriñ Saliou Sylla imam waaye mënees naa wax na it sëriñ Saliou Sylla chef de village bu jannatu euh, mënees naa wax ne sëriñ Saliou Sylla itam taalibeb sëriñ Saliou borom xam-xam jàngalekat sëriñ Saliou boo ñu doon andil mag mu barkeel mii ñu bëgg a waxtaane tey ci ëttu murit mu di sëriñ Masdiaw Sylla nan lan nan nga ñu ko mën a leerale ci biir ëtt bi ba ñu ñu bàyyi xel man koo xam ay kàddu yi dañ koy tàmbalee lu nu bindoon ci moom soo ko dugg ci noonu nga ko waxe téere bi nga xam ne bind nañ ko bu ci yàlla àndee du yàgg dara danañ ko gaaral ba loxo yu bari man caa tege mi ngi tàmbalee nag ci allahuma salli ala sayidina mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbi wa sallam wa alhamdulilahi rabbil alamin wali saalihin wala xudwaana illa ala saalimin wala xaaqibatu lil muttaqin allahuma inna natlubu minka alxabula fi ibadatina wa sitra an uyubina wal buluuxa li jamihi maqasidina wa amalina bi xurmati abdillah wa xadimi rasulihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kon foofu la mbind mi tàmbalee noonu tàmbali nag ca sant suñu borom subhaanahu wa taala julli ci yónnente bi jël nu yooyu sell yu tàddaje ak leel ko xalifa sanaa di murit sëriñ Muntaxa ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir te ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ku wér ma jël nu yooyu teg ko ci loxal sëriñ Sidi Mbàkke mi nga xam ni kenn mënta wax ci kër ma ñaaw tuddoo ko ngir cër yee ko fa suñu borom may yàlla na ko fa suñu borom yàggal te boole ci ak wér ma jalaat nuyoo boobu jox ko sama sëriñ sëriñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Saalihu ñaanal ko yënkutoom yi ak naalam yi yëpp lu ci ne yàlla mel na mu ko bëggee. te ànd ko ak moom. laq ci ngër moom saaxiram baatin barke bi sëriñ Saalihu sëriñ Sidi moom ma tudd léegi nag ñu sant si la bu ñu bëggee wax ci ñaxal ci moom la ñuy doore. ndax sunu borom dafa dogal fépp moo ko yilif ngir mbokk galeen sunu borom boole. ak yërub sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moom la jagoo. loolu nag bu nu àggee ci indi njabootu sëriñ Mañaaw dana ci leer. Mm-hmm. waaye moom sëriñ Mañaaw mi nga xamante ne bii moom lañu bëgg a wax ay kàddu ci moom. Mm-hmm. dama am baay bu baax ku ñu daan wax sëriñ daam faylu di doomi sëriñ Madu Moxtaar Si la ma mm-hmm. ma waxoon ni ma dañ koy wooye Mañaaw waaye Ibrahima la tudd waaye nag tur wi moom siiw na te siiwug tur wi. dafa ànd ak cosaan bi ndax diggante mañaaw ak sumbul ak majama ci askanu ñaxal lu ci yaatu la nit nag boo bëggee wax ci moom dara faw nga wax fan la gane àdduna sëñ mañaaw waaye juróom di ma baate ndumbe jeng ñu daan ko waaye libaas ku yàgg ci lu baax mu jóge woon fii ci réew mi ànd ak sëriñ bu soo bi ñu dem gànnaar mu taatan fa xam-xam yu bari ba indi ko <coughs> te ba ñu dem gànnaar booba lu mos jafe na lool waaye nag yàlla defoon na sëñ ma paati moomu ñu gën a siwe ci turu libaas amoon na pexe ci wut luñ mën a mos mm-hmm. saa su ko wutaa ba am ko it daa wax ne du lekkoo ci naar yi saa su leen wooyee ngir añ mbaa ngir reer ñu wax ni kaafin kaafin laa baasa hmm. in lam nasitka lan naan xusaka in lam nasitka fa lan naan xusaka bu ñu la dolliwut duñ la wàññi hmm. mu àndoon noonu noo nee nag àndandoo ko ak sëriñ bu soo bi hmm. waaye nga xam ne li baas ndumbee jeng sumbul ndaag faal moo ko jur sumbul ndaak faal nag moo féete woon sanc barab ba ñuy wax ñaxal daqaar kon day mel ni lu histoire bari bari ak wuute man li agsi ci man taleer ci sama xol tama man koo jàpp mooy say meñaaw am njàng mit dara génnu ci wajuram mu doon koo xam ne misaal mu yéeme la ci nu ñuy fonk kilifa ak nu ñuy ànd kilifa ndax biir waajuram di dund du yëkkati dara ngir taxawal ko du tëral dara ngir tëral ko amutu bëgg ci dara amutu bañ dara dafa noon dégg rek di déglu waajuram mm-hmm. fu mu ko jëmale mu jëm fa loola it waxuma sax mbirum ëllëg waaye tey ci àdduna gis na ca ci ay xéewal ak i yokkute ak i barke loo xam ne ku ko nafar ba xam ko danga xam ne am kilifa ak nangul ko lu am solo la Sumbal Daak Fall mooy ma wax ne moo jur Libaas Ndumbe Jeng moom Sumbal Daak Fall mooy te ma paate aram sàll moo ko jur ma paate aram sàll nag Matar Safura Kamara moo ko jur waa ñaxal nag dañuy def seenu askan bu ñu ko limee ba agsi ci Matar Safura dañuy jàpp ne ku doon lim askan yonte ba agsi ci Adnaan yemu fa xamees na ca lu bari waaye la su mën a jariñoo ca la tàmbalee ci Matar Safura ba fi nu toll doy na mu xëy doy na mu ngànt bu ma ni su ko wees di jéggaaniwaat la neen dëgg la kon sëriñ Mayama googu ci wàllu askan ak wàllu fa mu juddoo mhm. li ciy dolli ko nag mooy ni ma la waxee ci njàngum alxuraanam génnul waajuram kër ndeyam mhm. waaw wàllu kër ndeyam nag mhm. moom mm, bëgguma caa xóot lool sax ndax ndumbe jeng mi waajuram ndumbe jeng a ko jur am na fu mu jaaroon ba am ñu fa am ñoo xam ne ñooy suñ mbokki saaw saaw yii mm-hmm. suñ suñ mbokki saaxo saaxo yii mm-hmm. tey ji suba rek maa ngi ci waxtaan ak Ibou Sakho mm-hmm. sëñ bu Sakho te bari na ci loo xam ne toog ak sëriñ saa yi mu di ko nettali waaye daal nanu yem rek ci Ndumbe Jeng mooy waajuru sëriñ Libaas waaye sëriñ li libaas nag moomut waxtaan wi mm-hmm. sëñ mañaaw ki moom waxtaan wi dëgg dëgg nag mooy sëñ mañaaw mm-hmm. waajur wu jigéen sëñ mañaaw kon sëñ nga xamante moom moom waxtaan wi nag moom waajuram mm-hmm. mooy ko ñu wax Mariama Jaxate Mariama Jaxate it am na ku mu ku ñuy wax Coro Jaxate mm, askan ràbbaloo te jaxasoo la ndax mm, sëñ Mustaf amoon na soxna sant Jóob soo xam ne ko ko jur mm-hmm. moom coro mooy moo ko jur te soxna soosee ci la am sëñ Mudu Moustapha ak man Mansour mm-hmm. kon askanu mbaakol moom booy xool arab mm-hmm. day yaatu lool dëgg la boo demee ba ca waa ndemee nit noonu lañ amee ak mbokk ak moom waaye daal tey moom gàttal rek sëñ mañaaw daal ndeyam a ngi nii baayam a ngi nii fi mu jàngi alxuraan a ngi aw doxinam ci àdduna aw doxinam diggam ak sëriñ bi ak nag yi nga xamante ne suñ suñu borom xaasale na ko muy yoo xam ne ci moom bis koy njëkk a gisee ci moom bis ko mujj a gisee macha allah ah. jërëjëf euh, sëñ Saliou euh, am na solo lool ci euh, ni nga indee taarixu sëñ ma ñaaw mm-hmm. rawatina nag déparé ko ca Makhtar Safoura kamara mm-hmm. yaakaar naa ne kooku bu ñu ko tuddee rek danañ gis ne bokk gu yaatoo ngi noonu far mm-hmm. soog caa indi ba ñëw ci sëriñ <clears throat> Libaas ñëw ci sëriñ ñaaw bi ngay ñëwee ci sëñ Mandiaam bi nga tuddee wàllu kër baayam tudd wàllu kër ndeyam dañuy daal di gis ne kon mbaakol mbaakol piir lay doon ndax jaxate ak sille kon eh, bu dee ñaxal ak mbaakol bokk ga dana gën a tisaaru gën a yaatu bu ñëwaatee ci kanam ndax dana bari lu waree lu ñu xam ne ndakate ci njalbeen ga la fondation la la la la la la amee woon wax na ñit wàllu njàngum alxuraanam baayam moo ko jàngal alxuraan ba noppi mu déggaloon ko kon day mel ne tërbiyewu na baayam ni mu tërbiyewoo alxuraan ci moom la tërbiyoo baayam ba am ngërëmam ndax bi am njàngam àggee dafa dafa nekk ak baayam ci daaray alxuraan wala da sañ ci daara ndax ñooy def ko wax ñu ne sëriñ ma ñaaw si la mu siiw mu kaang ma daa mel ne kon siiwee na ci barke ndax siiw moom barke koy maye wala alxuraan jee ko siiwal wala ban taxawaay la amoon ci daaray alxuraan laata muy gis sëriñ bi. alhamdulilah rabbil alamin ba ci nu ma waxee léegi ci ganam àdduna mi ngi gane àdduna ci mi huit cent cinquante deux. mille cent cinquante mi ngi génn àdduna ci mille neuf cent trente sept. kon moom magantiwut ak sëñ bi lu bari. lu bari mhm. waaye nag bi mu jàngee alxuraan ba noppi. dafa jàng xam-xam. Mhm. te dund ko. ab sant la ma sa doon ci baayam. Mhm. fu baayam ma sa jëm mooy gàddu gafaka gi ajal ko ko ci fas wi teel ko tànk mu yéeg mu topp ci ginnaaw. dem na nag ba nga xam ni dafay mel ni. xajootul ak baayam ci mel ni pénc hmm. ndax li baayam yor bari na hmm. te ñamu bokkale baay ay taxawaayam lañu yor hmm. ndax danaa ci këf tuuti nga xam ne moom mu ngi bokkoon baay ak soxna Jeng la bokkoon ko ak sëñ Muudu Faylu Silla bokkoon ko ak soxna Fat mi nga xam li mu doon ci soxna moom kenn nettali ko bokkoon ko ak Joor Kase Libaas ma nga xam ne ba mu demee ba eh, ak ñaari xarim yooyu xari mbarak xari xari mm-hmm. ni ñu demee ci kër sëñ Tuubaa kenn nattabliwu ko mm-hmm. bokkoon ko ak ko xorom woon ku ñuy wax sañ Matar Mariama mm-hmm. mu ko amoon ixkaam moom sama ñaaw ñoo bokk ndey ak wax ne loo gis ko naw mbaa nga di ko yéem adduna caa noppeekut waaye lu adduna noppi cam ca des noonu la am ñeneen nag ñu mu bokkal ñoo xam ñu yaatoo yaatu la waaye damaa wax ne nun bu nu deetee waxtaan ci mbaakool nañ jël wenn tur ndax nañu ràbbaloo ak nañu doxee boo ko tojee minal alif ilal yaa yi hmm. dana bari ñooñ bu ñu ko déggee dañuy dar seen gimmiñ dëgg la fekk mbirum suñ boroom nag moo demee noonu ak ndigal suñu borom hmm. la ca suñu yoon ne daal mooy ku ne fa nga ca toll ak kanku seqal dëgg la ci biir sanc boobu yi nga xam ne sëriñ Mañaaw mënu ko woon a ñàkk a sanc ndigal baayam hmm. ndax mbooloo mu bari ndax dañoo wax ne bi muy sanc daara ji boo ko jubee da nga naan lekkat du daara dëkk buy sanc si la ndax xumbaay ga ak bari mbooloo ma. dëkku baayam bi. daara moom bopp moom sañ sëñ bi muy sanc si kër ma ñaaw. bi mu jógee ci baayam di sanc. di yor na mbooloo mu tal noonu. moo xëy boo koy séen danga naan lee dëkk buy sanc si la. Mm-hmm. na ku baax ko ñuy wax sëñ si la ma ci njaarim bi jàngale alxuraan. Mm-hmm. bàyyi la ci man sëñ Muudu Jóob ma kooke Dakar moo ko doon jàngal. Mm-hmm. bari na ci loo xamante ne bii ci moom la ko déggee. sëñ ma dafa am genn tàkkusaan mooy damaa bëgg balaa jant be soo ñu bindal ma ab kaamil ci àlluwa yi na ku ne jël roba ju ñu séddoo ko noonu ku ne bind ku ne bind ku ne bind bañ jox ko mu gis ne benn roba képp ma manqué muy roba bu mujj ci illah yuraddu ilmu saa maa kaana li basara an yukallimahu llah illaa wahyan aw min waraai hijaabin aw yursila rasulan fa yuhi bis ne may saaw mm. te dafa mel ni ku gëstu ci wàllu xam-xam ak mbirum sekk rek baatin mm. danga xam ne roba joojee la ko taxoon a manqué. Mhm. waajtaayu Serigne Touba la. Mhm. ak lu nëbbu ci mbiram loo xam ne mu bëgg a feeñal la. dëgg la. kon njàngalem alxuraanam foo ko takk romboon na ko. Mhm. am na góor gu baax ko nekkoon ak Serigne Saliou ñu daa ko wax si Moustapha Gueye. foo ko mas a fekk day tari rek. xëy na nag doo ko dégg ba xam ko waaye tari bi moom da nga xam ne kii li muy tari ñor na ko. ba mu jàngee alxuraan bay dem dafa toppi ni ñëpp baaxoo def. ndax fu waaye mas a jànge alxuraan bala ngaa jàpp ne leer na dangay ñëw daaree sëñ ma ñaaw mu xoolal la ne ba mu ñëwee ba jox ko alluwa ja sëñ ma ñaaw sëpp xalima ko waccax ko mu fendi mu sëppaat ko mu fendi mu sëppaat ko tàmbalee ci kaw ba ci suuf tàmbalee wàcc suuf ca kaw kon da jàmbaar nga sama xalima gii de ma sëpp ko te yuutut bari am kon sëñ Mor Mbay si si dafa am suñ mbokk mu waxoon lu yéeme daf ko ni waaw sëñ ma ndax xam nga teratang ba mu daan jaay hmm. ba mu daan jaay gerteem ga hmm. mu ni ko déedéet hmm. mu ni ko xam nga sàmm ba ka daa sàmmal ko déedéet mu ni alxuraanam ji daal nga xam yàlla rek am solo la mu séddoon yàlla te moomulu ca boppam dara lam am ci yàlla loola ko ko may laneen la àndoon ak yàlla ak laneen xamoo ko xooma ko keneen xamu ko mbaa fàtte nan ko allahu akbar kon lu dul yàlla yàllaa ko gën dëgg yow wutal yàlla moo gën di wut ay mayam defe naa loolu sëñ Bay Jaxate moo ko waxoon mm-hmm. te ci biir daara yi alxuraan ji am na nu mu ca daan doxe noo xam ne sëñ Isaa mi nettali ma ko ne ma sëñ ma Jóob ko wax ne ko sëñ ma ñaaw da ba jant masaana so mbooloo mi ne ci kër yi ay géew lañuy def kee tari jëm fee kee tari jëm fee kee tari jëm fee muy déglu ñëpp nag te kone ne foo rungee wala nga yàq fa mbaa nga gàgg fa da koy xam kuréel li ñuy bari bari bu ñu noppee mu def leen ñetti xaaj woo diw ak diw ak diw ñu toog fii moom di leen bagaanu cere ndawal goo xam ne yàpp wata boor lay doon te day bari ni yéen kat sama dégg yéen a gën a setub tari yéen a gën a wér ab tari yéen a gën a néew ay runge yéen a gën a néew yàq kon nag yéen sama reer bi yéen ciy jëkk a reer bu ñooñu reeree ba jug mu woo ñu sës ci ñoom ci ñoo ñu sukkaat mm-hmm. bu ñooñu demee mu waaj ñeneen waaye suñu borom dogal na kii jëkk a sukk ak ki mujj sukk ku diis loon xàmmee ngir doonu ndab la ak woomaay ka te alaa kulli xaal bis ba ne noonu lay def moo tax sëñ ma jóob ni kuy jàngale alxuraan war ngaa jër méthode boobu ci sëriñ Mignane ndax dana tax ñi ngay jàngal. Mhm. ñu fonk la ñuy jàng. dëgg la. am na góor gu baax koo xam ne daaw la faatu fii ci Janatu Mawa. Mhm. ku ñuy wax sëriñ Birane Touré. Mhm. dafa am mu ñuy wax sëñ ma Seyar Touré di taalu bépp sëñ si Awa Balla. mu wax ba mu ñëwee kër Mignane di jàng si waxtu tàkkusaan nii sëñ Mignane di xool alluwa bi ak si ci alluwaam xool ko. daal ko ni. jool hmm, yow su mbind mi rafet na di yaa ko bind mu ni waaw mu tàmbali ko laaj li ñoo fit baati alxuraan yi nga xam ne dañuy niroo nu ñu leen di waxee te boo leen di bind ñu wuute waaye xale bi lu ko sëriñ bi fit rek mu trouvé ko retewut dara su mu ni ko ah, na nga ba bindal ma ab kaamil hmm. loo bëgg a def lu bokkut ak lii ma la wax nag dana am jafe-jafe ndax boo fi bëggee bàyyi njàng mi dem day danaa wutub jéng def ko sa tànk yi oh. waaye nag bisu tey maag yow nooy bokkub reer mm-hmm. te ni ma la ko waxee léegi reerub sëñ Mañaŋ moom la neen la woon dëgg la ndax barke bi dafa bari woon lool mm-hmm. yàpp wata boor wu ànd ak meewum gëléem mbaa meewum nag mbaalum taam mm-hmm. ak cere lay joo xamante ne bii doo mën a gis tàbb sun borom nag defoon na barkeem ci dugg ci daaraam jàng te moo yombut jaar fa te jëlewu fa barke it bëriwut am loolu yi mu tuddoon gone ga di ko xupp ni ko boo loo bëgg a def lu sa njàng mi danaa def jéngi ci sa tànk bi dafa dëppoo ak li xàkkim ba di wax naan daxu assawta xay su yaraaxul xaadim day leen teg yar fu ko gone gisee balaa luy jar yara am waaye sëñ meew nag daaram nekkutoon daara juy jéngee nekkutoon daara juy dóoree nekkutoon daara juy yalwaanloo daara spécial la joo xamante ne bii li daara yi moderne moderne bi su tey jii na mu doon dundee daaraam àggaguñ ca wallaahi dëgg la yàlla dogal na nag sëriñ Massayer Touré moomu ngir bar képp kàddu yooyu ko sëriñ ma ñaa wax ak farlu gi mu farlu woon hmm. dem na ba bind juróom ñaar fukki kaamil ak juróom moom sëñ Massayer sëñ Birane Touré mi ma ko nettali sëñ ma hmm. moom ne sëriñ bind na juróom ñaar fukki kaamil ak juróom ginnaaw ba mu woo ne ma dolli ko nag kat man na juróom-ñett fukk ak juróom ma ne kaa man de ba muy bind la nga ma waxoon laa bindaat bu ma dee wax nag leeral ci loolu mu ne ma boo dem fii ci Daara Jolof boo rombee kàddu baroo ji ba dem Daara Jolof dafa am benn dëkk bu mu demoon fekk fa ku génn àdduna ñu di ko jàngal alxuraan kaamil bi rafet lool benn mu xàddama ngi ci nag boo xam ne yii daje na ci moom am na tiraangay àdduna bëgg na alxuraan mu daal di xool daal ne waaw mbind mi moom rafet na di ñu ni ko ah, moo ne xele bële day ko bind mu ne xele bële ñu ne wool leen ma ñu woo ko mu ñëw mu ni ko yaa bind lii mu ne ko waaw mu ne kaa ah, nanguwuma xam nga luy tax ma nangoo mu ne kaa ah, mu ne ma jox la kayit nga bind ma gis bi nangu mu daal di koy wutal kayit wutal ko daa jox ko xalima ni ko benn muy ko foo ma wax ma tàmbale ma jox ko fa ka soob xele bu bind roba jox ko mu xool ni ko ah nangu naa da yow de yaa bind lii waaye nag maa ngi lay warloo kaamil boo indi dinaa ko jënd. mu moom koo ko wax ko. waaw ma daal di gis te nag. Mm. baatul say meññaaw ba ak kàddoom ga bëgg alxuraan. Mm. ak soññe gi ngóor si tax na ngóor si bind li mu bind. Mm. waaye yaakaar naa dërëm yu teew it na ci ci participé. dërëm yee dama ci la moom. moom moom la waxoon na ko alxuraan wala. wala ma def jëng ci tànk. allahu akbar. nee na la taalibe sëñ si sëñ waaw. di taalibe sëñ maam Thierno. kon danaa profité siyaare waale fi waa kër borom Daaru. dëgg la. te kër ma ñaaw ak alxuraan yi bu ñu leen dee tudd. borom Daaru di ci am ciru boppam. boo xam ne bu ràññiku la. ci kanam tuuti. dana am tuuti lu ma ca tudd. waaye defe naa loolu moom fii ab taxawukaay la. waaw jërëjëf eh, sëñ Saliou. jërëjëf mbokki eh, téléspectateurs yi ñu topp ci seen émission Ëttu Murid ñu ngi leen di xam ne lii mooy premier numéro. ci sëriñ Mañaaw la ñu di ko waxtaane incha allahu rabbi numéro bu njëkk bi lépp ñu ngi ko jëmale ci alquran ak ni mu ko tarbiyewoo ak diggam ak waajuram Eh, suñu deuxième numéro incha allah bu ñu ci dikkee danañ ñëw diggam ak sëriñ bi waaye kon ba tey rek sëñ Saliou ñu ngi lay jaajëfal baax baax di jaajëfal téléspectateurs yi ñu topp di siyaare sëriñ Moustapha mu Cheikh Abdoul Ahad yaakaar naa ne ku tudd Kër Mañaaw tudd ko sëriñ Mahmoudan mu Cheikh Abdoul Ahad sëñ Abdoul Ahad mu sëriñ Sohaybou eh, ku ko tudd tudd ko sëñ Moustapha mu sëñ Abdou Khadir ñoo ñëpp yoon wi ci ci biir eh, émission lañ émission bi lañ bokk ñu ngi leen di jaar baax a baax ma ñëwaat ak yow tuuti hmm, ndax bi mu sañcee daaraam daara yi sëñ libaas day dox daaraam di dox ak diggante ñaari daara yi dafa jege lool kilomètre ak genn wàll mbaa ñaari kilomètre mbaa sax ko manqué nee naa la moom mboole mboolem ñu mbokkal bàyyi ñëpp ay tànneef lañ sëñ Modou Faylu ñoo bokk nday ak bàyyi ne woon na njaareem ci kaamilub sëriñ bi sëriñ bi féetaloo ko njàngam alxuraan jàngale ko ba ko fa sëriñ bi yeewee sax am na pot bu mu ko joxoon ko foo bëgg a dëkk def ko fa boobu ba bi na bis ñu am lu ñuy gas ca kër ga ba mu feeñ mhm. waaye sang suus baax socialu suus yi nga siyaare leen a war a siyaare ndax sëriñ si dim suñu blaat ni ma ko waxee léegi mhm. dafay koo xam ni fit bi ak njàmbaar gi foo ko takka ko romb dëgg ba muy jàng alxuraan mhm. fa mu ko doon jànge ba mu demee ba bindu kaamil yemu ca moom sëñ Sidi dafa bind benn ñu di deeti waaye mu bindaat beneen teg ca ñu di deeti waaye mu bindaat beneen teg ca mu ñetti kaamil allahu akbar te xam nga ku ma di jàng boo masaan bindu kaamil sam xel ci noo xelew jóge foofa lay doon dëgg la dëgg la waaye mu ñetti kaamil yu tegaloo yooyu la bind mhm. kon noonu koy siyaar lu bare bari dëgg la ci wàllu alxuraan ak sëriñ Mañaaw mhm. dafa am sew sew bu ci ne boo xam ne mhm. bu ñuy jaajëfal waa kër sëriñ bi ki ñu ciy gën a cité gën ko cee jàpp mooy El Hadj Mahmoud Fadel Cheikh Mahmoud Fadel ndax li mu jaarale ci ak njabootam biir Kër ma ñaaw kenn ku sant Mbàkke jaarale wu fa lu na toll. Hmm? te la ko sabab it weesu dégg gam déggoon Serigne Touba wax Serigne Mañaaw ni ko. Hmm. rafaatale naa la hmm. te ay waxtaan lañ seqoon. ba mu àgg ca. suñ borom nag bu baax loo sa mbir loo defati mu baax. dëgg la Serigne Mañaaw dafa am bis mu toog ak Serigne Touba. ni jàngkat baaxoo def. rëdd na rëddaat rëdd rëddaat. Sëriñ Tuubaa ni sikkar xool ko ne ko ma ñaaw lii ngay def loo ci jublu mu ne ko dara mu ne ko mag da lu muy def bu ca jublu dara bu ko mënee bàyyi moo gën <laughs> sëriñ ma ne ma daal di koy far mm. fa mu tàmbalee woon mm. ba fa mu yem mm. sëriñ bi daal koy noonu ko ko fare ne la la sun borom farale say bàkkaar mm-hmm. kon faru bàkkaar yooyee yàlla nekk luy royaat amin ba agsi ci sët yëg sëtaat yi ak ñi mu jabootee ñi ko xam ak ñi dëkk ak moom ak ñi ko sopp te yaakaar nañ ko nag ndax am na bi sëriñ bi ba mu ko laaj loo bëgg daf ko ne lu ñu may defal nay ëllëg te wala laa xiratu xayru laka mina loolee la ko sëriñ Tuubaa tontu woon te ka doon tagg yonent bi sallallaahu duhaa wa haasaaka an wa fii naa muhasab mu ne ko yow Muhammad sunu Boroom daf lay da lay jox ba nga kontaan ba ñu doy na kon kay ku ñuy buggal du am ndax xam naa ne fekk ñu ngi mbugal kenn saxoon du sedd. kon sëriñ ma nag. Mhm. kajoor gi mu nekkoon. Mhm. noonu mu jaxasoo ak kilifay yi diine yi. Mhm. ne doon jaxasoo it ak niti adduna yi. niti adduna yi noonu la doon jaxasoo ak ñoom. am na ci boor bu fa siiwoon. kuñ daa wax jaw kundaa mas na ñëw gane si sëñ mi ñaaw sëñ bi defal ko ci xeeti tiraanga loo xam ne yéem na ko lool ngan nga neex lool te mbooloo mu bari la àndal lool bi mu ko teralee ba nga xam ne nag tool na ci war a tàggatoo sëñ bi ne ko kaay nu waxtaan ñëw toog mu ne ko dama bëgg nga xam ne lii la sun borom jox muy nguur mayu ko dala ko abal du ñàkk moos bis dana ko jële ci yow jox ko kaneen ngay gis mbaa nga génn àdduna ñàkk ko fii nga tool nag boo yeewu dangay defe ni lu la neex def ci ku la neex te lu la neex def moom yàlla rek ko jagoo dëkk la te it xamal ni àdduna ak diine dañ fi bokk ne man de buurub àdduna ñemiwu ma ndax damaa fonk sama diine te adduna moom yàlla dana ko jox ku mu bëgg dana ko jox ku bëggut waaye diine yàlla dana ko jox ku mu bëggut ku yàlla jox diine war ngaa sant. dëgg la. ngan gii ma la ganale damaa bëgg boo génnee nga xam tund yépp samay nawle samay bokk samay xame samay dëkkandoo fi ne. Mhm. foofu wàcc ñu defale teraanga ju yées jii ma la defar. xamal ni sunu borom moom wutalee man-man yi. Mhm. waaye boo amee pexe moo ci bëggee jëfandikoo. Mhm. bu keroogee danga nga dajeeg man. soo. ni ko dégg li ma wax mu ni ko mu ne ko li ma la waxoon laa lay baamul mm-hmm. ab ma joos walla nasaraan mm-hmm. bokkuma ak ñoom ndax ñoom dañuy samp seen ngoo ca na mu leen neexe lu leen jegee ñu ñu laawut def ca mm-hmm. man nag wooma lu may alxuraan di kitaabullah ak diine lislaam waaye kenn jaar ci kaw samay bokk da jaaroo ci man te man kat wax naa la ko léegi buur bu ëdd ñemiw ma ab ma joos ñemewu ma am nasaraan ñemewu ma dara taxu ñu ragal ma lu weesu damaa taxaw ak alxuraan ak nekk ci li neex yàlla. kon nag sama dénkaane bi sàmmal ma ko. xam ne tund yëpp samay bokk fi ne. samay xamee fi ne. samay am jàmm fi ne. teraanga ju ñu la defal boo demee ci ñoom santal. lu ca manqué boo dikkee ci woon bu ma nga xam ne mottali ko. macha allah waaye looy saafare moom boo ko ci bëggee. loo daje kenn man mi ngay dajeel. nga daal di gis ne kookoom dafa nekkoon soldaar boo xam ne dafa doxale woon diggante boppam ak i bokkam mm-hmm. ak fitna yi adduna dëgg la dëgg la bu fitna bëggee dikk mm-hmm. mën na koo gàddu mm-hmm. lépp loo xam ne xewal gu jëm si ci moom la itam bu sañoon ñooy la ñuy njëkk a séddu soog koo jox ndax dañ naan ku ñemee dañ laa déy te moom ñemee woon na lim ñemee woon mooy musta taalal loxoom lu mës sa bëgg a daana ko am kon barkeb alxuraan wàccoon na ci moom wàccin woo xamante ne bii ni ma ko waxee léegi dégg ko alxuraan wàcc ci yow nu toll noonu musta am macha yàlla na ko sunu borom fayal te taasuñ ci barkeem. jërëjëf eh, jërëjëf Serigne Saliou Sylla imam jërëjëf eh, mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloo ñu seen émission Ëttu Murid eh, yaakaar naa ne jot ngeen a dégg Serigne Mañaaw Sylla digganteem ak ay bokkam dégg ngeen it cosaanam xam ngeen it fan la bokk ci réew mi waaye dégg ngeen diggam ak alxuraan xamit ngeen lenn ci sëti Serigne Touba yi lu leen dugal kër Mañaaw ki doon waxtaanee moom ci sët lay bokk kon sëñ Saliou yan kàddu ngay ak mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo la doon seetaan ñu joxaat leen nag rendez-vous ci alxames ji di ñëwaat ci deuxième numéro diggante Serigne Mañaaw Sylla ak Serigne Touba ak ñi nga xam ne ñoo ko jot a wuutu. jéggulu leen lu nekk rëcc rëcc ci wax ji te sant leen te ñaan suñu borom jëriñ ñu ci te xam ne lépp luñ ci wax nag dañ koo gëstu ba wóolu ko soog koo wax. kon nag buñ sañoo ni ñi koy dégg dégloo ko xel ak xol te dégloo ko sago te xam ni in uridu ila mastataatu waaye wa maa tawfiqi illaa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib macha allah asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ñi ngi jaajëfal baax a baax wala ñuy jaar baax soxna Fat Seck Salihat bokk ci suñuy auditrice wala ñi nga xamante ne bii suñuy soppeleen di suñu jigéen ñi saar soxna Fat Thiam Euh, bay faalu sëriñ Cheikh Anta jaare itam bu baax a baax euh, soxna ay Aysa Saliou Ba foofu ci Ndakaaru jaare itam bu baax a baax euh, soxna Fatou Gueye soxna Fatou Gueye ñu ngi koy jaar bu baax di suñu doom ñu ngi saare soxna Khady Ndiaye ci Parcelles Assainies di saare mbooleem téléspectateurs yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ñoo nag dinañu seetaan fii ci seen télévision Lamp Fall TV seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll moo nekkoon ci micro bi ginnaaw bu ñu siyaaree ñaanal euh, soxna Gàdd Bousso ñu gën ko wax min soxna Barakatu so yàlla sun borom dolli ko ak wér gën ko fee yàggal bi barakati Cheikhul Khadim seen mbokkum taalibe la Fallou Galass Syll la woon feggoo ci wàllu euh, caméra bi sama ñaari Fallou yi El Hadji Fallou Sylla ak Serigne fàllu saw ñu ngi leen di jox rendez-vous ci beneen alxames ci ñaareelu numéro Serigne Magnaw Sylla diggam ak Serigne Touba Khadim Rasoul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu بسم الإله فن الدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله فن الدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله bismillahi xiinil ak daara yàllaw safi baqa abihim li fika yàllaw yaa man lawul amru yaa man la